li si yéene yi tolluwaayu réew mi de ci wàllu politique fa mel ni fañ si nemmeeku ak finna rëy ci wàllu kàddoo ki jëf ak xiroo ki ŋaayoo tax kii di docteur Maurice Diek John nekk ab jàngalekat ci wàllu science politique di ci fësal ay kàddoom ci biir ëttu yéene kaay bi di Sud Quotidien di laajte lu waral li ni mel lu weesu élection présidentielle yu ñu dël ma ci atum 2024 ñu ci gis nañu nekk ci bopp réew mi pare ne ni ngir def lépp lu ñu mën ngir gën di desandi ci bopp réew mi loolee tax kat nekk ci wàllu opposition bi nar a jàmmaarloo jàmmarloo ak ñoom moom docteur Maurice Dieng John ba tey ci ay kàddoom mi ngi xamle ne liggéey moo gën xiiroo ak ŋàññante bi ñu nekkee dem na bay joxañ baara mi tuuma itam ñi nekk ci gox goxaat yooye naan lépp lu nga xam ne moo neex nguur gi rek neex na leen moom président Macky Sall ñëw di tontu ci suuf su aane moom daal du bàyyi kenn muy taar réew mi mbaa mu yee fi na ubbil yéene kaay sa Seck de am na ay ponkal fekkoon ca pale ba fa ñuy sàkku moom président Macky Sall mu taqali ko ak moom ndax ministre ak nekk numéro 2 pour président Macky Sall ci élection 2024 te moom musul gagné sax bureau de vote waaw lu gën a leer ci wax ji moom Moustapha Niass mu ngi xamle ne AFP amagul benn candidat ci élection yu ñu dërma kon nag neen ànd ak dal l'observateur naan yëpp ñoo ngi ñaan ngir ñu ànd ak dal ak jàmm ci suñu gaal Ahmed Khalifa Niass fay topp Babacar Diagne njiitul Sénat bi nga xam ne fa dog maanaam coupé signal wal fajari wal fajari yéene bi naan kilifay télé ba fa ñu mer ba futt ne fa ñuy topp ci yoon tax na kii di Cheikh ñees nekk njiital wal fajari naan ñoom yaay seex lañu ñoom dañoo tëddee njaaxanaay ku leen fay rek ñu liggéeyal leen ci yéene kaay bi Ousmane Sonko yegg na fa ngir masawule di si yëkkati ay kàddu ne bu doon France 24 dara du leen ci fekk du leen lu du firange rek gi Mari Sagna mi ngi naan yendee de moom ngeen gënoon a yelloot ka ñu leen di couper ba ci Bougane Gueye Dany moom tamit ma nga naan rek la ñu fi nekkee ba ci mitin bi nga xam ne waxoon na ko sax du dëgg du yoon yoor yoor yéene kaay moo ñu ko xamante groupe wal fajiri mi ngi xamle ne dina amal ab doxam ñaxtoom ci ajjuma bii ñu dënmal ca buntu wal fajiri samdi ca sénéral bu Babacar Diagne dimanche ca place de la nation ngir lu xeex ak salfaañe liberté de la presse bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien Le Soleil mi ngi naan gannaaw ngañ nga ca Thiès moom président Macky Sall ma nga ca Dubaay yéene kaay bi ne ca Malicounda centre électrique ba ñu fa def président Macky Sall amal na leen njëriñ juróomi téeméeri doomu aadama ak ñaar fukk ak ñett ñoo nga fay liggéey maire ba di Maguette seen di ko rafetlu ak machine échographie ba nga xam ne am na fa ak bépp jumtukaay bi nga xam ne rek ña nga koy jëfandikoo ñu jeexandi ci suñu làmb bi xëyee ci diggante Tapha Tine ak Bombardier waaye de yaakaar bu tas de la ñu fa jëlee ndax sentu woon neen ci ñoom làmb ju dàqu dañu bëree waaye de mën nañu jàpp ne kii di Tapha Tine na lamb ji kii di jee ak lu mën a am daal yal yàlla defal jàmm